mën na defar mën na ñaw day acca acca akolaat ko ñëwal nga akolaat ko sama waa ji yaa sañse mbuus bi laa bëgg mu teg ko mbuus day toog di solo ko waa Ndeye Ndiaye sañse nga nag si Alassane Marème ana Rosaane ma hmm. sama waa ji dafa baax de moo ma tax a déplacé wu euh, ba Thiès. nit ku am personnalité la nit ku baax nit ku mën a wax lu rafet nit ku mën a ñaw boo koy seet rek ci day yaay mii mhm. barki Seydina Mouhamed jàpp ko mhm. kii dama koo naw ci benn côté mhm. ba pare du yàq naw leen gis nga ku muy àndal dalay def dafa am jaar man ak moom fu mu wax ma wax yu rafet yoo xam ne si laa ko jàppee xam ne kii du yàq naw leen barki Seydina Mouhamed buy ànd ak yow day jël sa xol ak sa xëtër ak lépp jox ko man du sama xarit ànd ni mais nit ku baax la ma xam ko ci internet bi ñu séq liggéey man ak moom moo woo ko di mu ne ma noonoo non dugg na fii di départ départ départ départ ba man mujj gi lu ma jàpp dama koo baax yaa baax yaa am personnel yoo xam nga ni boo xewlee ma paas ma jël sama oto chargé ko essence jógee dakaar ba Thiès ñëw man du ñëpp a ma yëkkati du ma dem ci kenn di jëntuwuma kenn mais yow nit ku baax nga nit ku bari valeur nga nit ku bari personnalité bëgg jëkkëram yam ci jëkkëram jëkkëram rek kon na mm-hmm. alsa kon Ndeye Ndiaye bi ñuy gis ci tele bi yow xam nga beneen Ndeye boobu kii dafa baax mm-hmm. yow man ku ma la ne baax na rek xamal ni baax na. li ma a wax mooy boo jaxasoo moom da nga gis yeneen. jikko barke Seydina Mouhamed. kii boo ko gisee ci internet muy wax. Mhm. danga naan kii dafa pànk. Mhm. waaye boo boo boo ropanteeg moom nekk ak moom dangay xam ne kii li li li nday jaay di suwe mhm. nekkul ci ci ci jikkoom. dafa ragal man maa la ko wax. man du ma waxantu. dafa ay million ma liggéeyal ko ma gis lu ma naqari ma woo ko. mais geste bi mu def ak defar gi muy defar naa ma non non defal nii defal nii defal nii te tey bu doon sa sa xale yi léegi si dañ la naan waaw diw lii diw lii diw lii mais dafa defar ma xam ni kii nit ku baax la barki Serigne Touba Mbacke jaan ci pax mën na nekk ak moom parce que tegle naa semaine di ko yendo ak moom di liggéey ak moom mu nekk nit ku am personnalité nit ku baax nit ku bari valeur man du ma ne kenn yàllaa ngi mii te gisuma ko man lu ma yëkkati yombul démb dama demoon Viviane ba dama sonn tey moom moo ma tee dem Viviane ba ba pare tey am naa yeneen programme moom moo tax ma wacc ko ñëw même bu ma def place damay ñëw mu gis ma parce que nit ku baax la nit ku mën a ñaw la nit ku am personnalité la nit ku bari dignité la moo ngi ni toog xam nga nit dinañ la jox róor nit ñi foog ni róor boobu yow noonu nga mel melul yorul sax jukko jooju man lu ma la wax si ndey mi takk ko téere barke Seydina xam ma toog ak moom jouer ak moom yenn ak moom fuu mii duma bàyyi ma fen xam na li may wax ndax bu ma woowee jotuma fuu lay woo fuu ne ma nday ñaay mii nit la kii ku baax la moo tax nit kenn du ko jugé nit kenn du ko jugé. Mhm. xam nga kii lan la ma defal hmm. xam nga jamono ji ñu nekk nit ñi dañuy jayaate duñu wax nit dëgg te booy ànd ak nit ànd nuñ koy waxee ànd jayante la tàqalikoo jëwante dañu dund maa moom ci lu ma la wax nii ma woo ko mu rafetal est-ce que li ma la wax mhm. mu rafetal te tey bu doon keneen day yàq danaan diw ah noonu la mel kii ak a bon ak a def nii mais dafa defaral ba ma naw ko mhm. ni moo tax ma xam ni kii kuy ànd ak moom boo teewee da ngay rafet boo wanee ginnaaw da ngay rafet nit noonu lay mel te damaa gis ci moom jikko yooyu barke Seydina Mouhamed billaahi wallaahi wal kitaab dama dund ak moom loolu. moo euh, dafa am ñoo xamante ne dañuy ànd ak maam Ndiaye ndax succès bi moom am ñoo xamante ne dañuy ànd ak Ndeye Ndiaye ndax xaaj alal bi moom kii euh, maam euh, am na ñoo xamante ne ku nekk am na lu muy wut si ki nga xamante ne moo di maam Ndiaye sa bopp waaye Ndeye Ndiaye dafa ñëw wane fulla ak fayda ak kóllëre tax na nga jàpp. Ndeye Ndiaye li ma la wax déggoo ma du sama xarit. Mhm. dañoo séq liggéey mu génne xaalisam dugg sama oto génne maletu xaalis fay ma man liggéey laa séq ak moom ñu signé man ak moom contrat mais dama ko naw ci liggéey boobu parce que boo ko séenee ci internet bi wala théâtre muy wax danga naan kii dafa bangam mais boo jëflantewul ak moom doo ko xam ma jëflante ak moom mu nekk nit ku baax nit ku bari valeur nit ku bari personnalité man du ma waxal kenn ni yàllaa ngi nii te gisuma ko man benn xale lijjantiwu ma benn xale faalewu ma xale man xale duma may lu ma amut ndax bu xale yi xëyee damay xëy bu ñu wàccee day may liggéey ñoom bu ñu wàccee man damay liggéey continuer kon kooku kooku faalewul kenn mais kii kenn la ci àdduna man maa ko wax du ma seedeel kenn loo xam ne nekkul ci man barke Serigne Fallou Mbacké na ñëwal waa man damay wax lii dafa baax rek comme li ma wax sànq dafa baax rek mm-hmm. ndax ku soxor du gërëm ku iñaan du gërëm mm-hmm. te mu lii nii mënoon naa ko sékk ak moom mu nëbb ko téye ko bañ koo wax te boobaa tamit dara ndax moom it li ma sékk ak moom tamit man sékk naa ko moom gis naa ni moom it am na personnalité te respecté na kàddoom ndax liggéey lañu sékk may def kër Ndeye Ndiaye si ak Raf Prod Sénégal ku ne xam na ma Raf Prod mm-hmm. Clara di PDG bi di sama nit ku ne xam na maa ngi moom mm-hmm. ma koy def mu jël lépp teg ko sama loxo ne man day kër ndey Ndiaye bi gere ko mm-hmm. ma gis ko ci sentir ko ci ma woo ko ba ma ko woowee munoon naa rejeté wala mu wax ma benn wax boo xam ne ndax fii bari na fi ndax nit ma mën nga génn benn génn rek yéeg succès mm-hmm. mu yéeg sa dënn poñe say ween succès tax succès dafa garaaw te macha allah dalu ko dani ma carrément ndey damay ñëw mu nelaw ba guddee tëdd ma yee ko fajar laaj ko fu fu wëng ni duma bàyyi ma fen mu taal otoom ñëw tournel ma ba ma pare ci moom mu dem ñibbi te loolu ku am personnalité am classe mënu ko mhm. ku ko amul mënu ko franchement ndax loolu dama ko cee téye billaay wallaay taalaaxe mu ñëw liggéeyal ma normalement alsaan sama jëkkër sax da koy wax ndax mënoon naa ni tardeel tournage bi wala mu toog ba heure bu ko neexee du ñëw ndax loolu bari na fi mais defu ko yëfi profe professionnel la def te macha allah loolu tamit dama la cee naaw nga nekk nit ku baax tamit may gis say baax baax te àddina moom mën nañoo xaw ma nuñ koy waxee. Euh, tëj lépp ba mu des gémmiñ man sama gémmiñ du ma ko bu ma nit defalee lu baax dama koy wax lu ma defal moo tax ma wax ko mm-hmm. waaw soxla naa ko ñëw na liggéeyal ma normal am ma ci problème. dama la ci sant di la ci gërëm wax dëgg fa yàlla yaa ngi ni jóge ba Dakar tamit ñëw si sama bis bu la neexoon bañ ko mu bañ laa dal du dëgg mais mais Ndeye dafa mel ni yéen ñaar da ngeen di demalante maam Ndiaye am na fi ay événement yow nga jógee Thiès dem fekk ci ko Dakar tey aussi tamit mu fay la li nga xam ne yow yaa ko ko lebaloon ndax dafa mel ni seen relation dem na ba euh, euh, daanaka liggéey ak liggéey ñaari nit yuy liggéey seqatoo leen ko fam da ngeen dem ba familiariser wu seen diggante waaw mais dafa am xewle programme am Euh, woo ma booba euh, feebar naa tom tamit moment yooyu mais dama ne mënu duma mën a bañ a dem ndax kii li ma jila déggoo li ma la wax nit benn affaire la lay defal nga téye ko te man damay téye nit benn affaire nga may defal bu ndaw ma jàpp la ci mënoon naa ko woo 22 appel du ma jël du dëgg ma woo ko mu jël ma ne man day maa ngi ñëw des fois ma ko jotul fuu mi laay wax na dëgg te bu ma jotee fuu mel na ni moom laa jot ci saa si mu ni ma day maa ngi nii di ñëw ñëw liggéey demaat waaw dama lay sant di la gërëm ba nga xewlee sa euh, Kazu Rajab ba nga ma woowee lépp laa bàyyi ma ne damay ñëw force ndax li ma ji la mu mm-hmm. ngi noonu kontaan nañu. mais sañ nga nag kii kii jama moo jaay ci. waaw waaw. laxa ma soog mais mais mais boo jóg dangay ànd ak maam maam tamit dafa sañ. maam sañ sañ na de. yow sama daal waaw Mame Ndiaye sax waaw Ndeye Ndiaye sañ sa nga. moo ngi nii taxaw. Ah, ñëwal ci lii ah mënu ma ko defal vidéo dama ñëwal rëkkal ma ma a ko vidéo ah AMC mi mën na kat kañ nga may rëkkal yow AMC lii nga ñëw ëpp na de yaa mën a eh ñëw foo jox ko sa numéro a yaa mën na bii rob musuma ko gis fii nga dëkk Thiès di ñëw lii ah, Thiès di ñëw lii mbaqul silo bi mbaqul ñaw bi mbaqul poignée bi mbaqul yaa mën Sadou. mën nga maam nday xool ñu. macha allah. Ah, maam maam leen ngeen benn photo rek. wala ngeen taxaw Sadou maam. waaw defal ko vidéo bu taxawee. oh ah mais dama jox basket bi ma ana sama ñëw bi lan la ci wax man ko dina la ko indi. <laughs> Serigne Touba ak Serigne Touba damaa gis rek sa ma. ñii ñëw nañu sax. Clara ñëw na mais benn vidéo rek. Clara daa demaat ba rek. mi ngi noonu mi rek nga ci am. xool leen ñu ngeen defal ñu photo yéen ñaar ah voilà merci beaucoup. oh lii rafet na. kenn mosul. maam Ndiaye. oh c'est joli. yàgg naa laa dégg. ndeysaan. merci. ah mooy sama yaay. ah mooy sama yaay. ndeysaan. yàgg naa laa dégg bëgg. ah dëgg la. léegi dana naa lay déggee. kaa fa tubaarkaala mu dina suivre fu mu toll. sa benn compte bi sax sama ami. xale bu jigéen waaw Madia Seye mooy Madia Seye. dama moom kay may kër. maa ngi lay def man kay ñëw ba Dakar. laal la may kër ba am quoi. damaa summeeku woon sax day bëgg a sol yére. day ñaay mii. suñu yaay bi am na solo de. soxna si. damaa summeeku woon sax bay bëgg a sol yére ndax suñu délégué marché dafa xew la tey biir laa demoon kër day jaay kon may ñaan ci yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa seen ànd bii ñuy ànd yal na leen yàlla seexlu ci cat bu dee doomi tarixa Seex Ahmed Tijaan la su ma nekk ci tarixa Seex Ahmed Tijaan mu bokk ak maam borom Touba. yàlla na leen yàlla laxal amiin kii nag sama doom la di jama mooy sama taaw mu ànd ak Ndeye ñu nekk ay xale di ànd di bëggante di bëggante ba léegi si Ndeye Ndiaye nit ku baax ku mu am indil na ko jam lu mu xam ci lu baax ñëw la daw su boppam mettee sax lalu jama la koy kenn gisul kenn ku dul jama bëgg jama def ko doomu ndey musuma dégg ñu werante fii de sanoom la doomu adama bu nekk fii ñëw mhm. waaye moom mii li ma ko def ci sama xol barke sëriñ Babacar Sy ma yaakaar def ma ko kenn ci benn xol ndax nag moo ko moo ma ko ji mhm. moo ma ko won mhm. bët ba muy xool yaay moom la may xool kon yal na ko yàlla la fal cat lu muy jeex ci sëyam moo ko xam yal na ko suñu borom won ndax bëgg na jama teg na ko place fonk na ko jamaa xutti moo ñaw lu mooy def lépp waaw lu mu bëgg a def sama yoon nekku ci jama lépp yow la xew yi li muy rëy rey rëy lii lépp jamaa ko def yow nag Njaay Jaata ñaw yëpp sama loxo dañ lay ñaanal yàlla mm. yàlla xëcc saw fan ndax nag booy ànd ak xale mm-hmm. mu rafet ci yow la ndax seen ànd dara ñaawu ci mm-hmm. man ba ma la dalee dégg xaw ma woon di nga ñëw suma kër gi yëpp ngay def lu baax mm-hmm. di wax lu baax di leen digal lu baax dugaloo leen ci lu bon digaloo leen lu bon mhm. ba ma xoolee leen ci kàmb mhm. toujours def leen ni def leen naa ngeen di wax mhm. te lépp lu baax lay doon kon yàlla na yàlla fay yàlla doon leen yàq eggul kontaan naa kontaan naa jërëjëf kontaan naa maa kontaan naa maa foo jox ko sama numéro. xanaa nag di ngeen wàcc seen caméra yi pare nañ. waaw doo leen fi caméra waat. su fekkee la sama turandoo nga léegi. léegi ñoo bokk tur ay pompe ay rose. sa yëpp la ñëw ci bisu Ndeye Ndiaye bi rek. kontaan naa maa la gën a kontaan. naa li nga ñëwee sama bisu xarit la. kontaan naa mais madame Zeynab. merci merci c'est gentil. vous êtes très belle. tey tey moom bala ñu nan la bàyyi nga dugg ci biir. <laughs> waaw nañ def noonu ñëw ñëw nañ def la kaay.